bon bis bi nag li ko waral benn initiative la boo xam te ne dafa jóge ci benn membre ci daayira bi mu tudd Rawane Ying moo moom moo toog am xel mi waxtaan seek président bi vraiment mu apprécier ko quoi apprécier initiative bi mu waxtaan seeg yeneen membre daayira yi ñun aussi ñëpp apprécier ko mais bi ñu ko apprécier xëy na temps bi gàttoon na si xalaat boobu noonu pour ñu mën a dérouler li mu wax mais li naan balaa nga naan naam neef lépp ñun ñoo ko commencé membre daayira bi bind amee xalaat bi si la kenn ku nekk li nga yore woon nga génne ko mais aussi yamuñu si ndax kenn ku nekk euh, képp koo xalaat ni boo fa demee dina mën a jàpp si bis bi dinañu mën a jàppale wax nga ko ñu dem fa ban fa demee nag yàlla suturaal na ñu ni gis jàpp nañ si ku mel ni Mame Waly vraiment jàpp nañ soutenir nañu bu baax a baax a baax ak ku mel ni Euh, waa kàddu askan wi ñoom it jàpp nañ si bu baax a baax a baax ñu ngi leen di sant di leen gërëm ku mel ni Moussa Ndaw moom it jàpp na si ku mel ni Bas ak Tafa Sall vraiment jàpp nañ si bu baax a baax a baax ba ñu sollicité leen jàpp nañ si soutenir nañu aussi te loolu dañ koy soxla parce que programme yu demee nii activité yu mel nii dañ soxla ay soutien te vraiment bi leen sollicité aussi gars yi jàppale nañ vraiment ñu leen di ñu leen siy remercier Euh, presque plus de 150 élèves plus de 150 élèves bénéficié woon si affaire te ba nu waxantee dëgg jamono ji dafa nekk jamono ju metti te ñëpp xam nañ ni Sénégal et programme du fi jeex événement du fi jeex te lép si charge parent yi lay nekk ñu ñu ni pour quoi pas ñu par exemple alléger leen yenn tâches jàppale leen xam looloo waral activités yi aussi li sëñ Babacar doon wax rek naan daayira bu mu nekk foo xam ne dañ fay daje. mu nekk ay woy waxtaan oustaz waxtaan ngeen dem mais da di jàppalante aussi jàppalante seen biir jàppalante bokk ne si lii nii dafay kit scolaire dimbale ko parents mais aussi am na yeneen activités yoo xam ne daayira bi da koy mëne lu si mel ne ay set setal wala bu nu amee programme ngontal fii def ay don de sang wala yu mel ni ay ay ay consultation tant d' activité am nañ ko mais juste par défiance de moyens moo tax yenn activité duñ ko mën dérouler sur ce ñu ngi lancé appel pour euh, autorités yi ak bonne volonté yi nekk si quartier bi si koñ bi xam ni ñun ay jeunes lañu yoo xam te ne dañu pare pour jàppale seen gox pour liggéeyal seen gox pour ñu ñëw soutenir ñu leen rek leen nañ ñu soutenir ñu épaulé ñu parce que ñun kase duñ dem mais aussi ñoom aussi soxla nañ pour juste ñu ñu épaulé si yenn manifestation kàddu bu mujj mooy remercier euh, waa koñ bi ñu si jàpp ñëpp vraiment parce que depuis ñu taxawal affaire yi kenn toogul kenn taxawul kenn ku nekk li nga mën li nga xam. lépp yaa ngi koy def ñu ngi leen di remercier ci turu président nag ndax li may wax nii yëpp daanaka président moo ko waroon wax ñu leen remercier bu baax remercier koñ bi yëpp di remercier aussi bonne volonté jàpp comme ni ko waxee ñoom Mame waali waa kàddu askan bi Moussa Ndaw Bas Ndooy ak Tafa Sall remercier leen remercier aussi ustaasu daayira bi vraiment moom fu ñu ko soxlaa rek mu teew wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla remercier aussi euh, Baye Sall gars yi tagg yonent bi yëpp aussi remercier Aale yow mi remercier surtout président vraiment ba ban ko waxee affaire yi moom toogul taxawul mi ànd ak membre yi xamul naaj bu tàng xamul ker gu sedd vraiment di doox pour réussir affaire yi remercier membre yëpp aussi ñoom ñëpp jàpp nañ ci pour affaire yi dox daal waaw présidente bi aussi ñu ngi koy remercier waaw.